<laughs> merci beaucoup des applaudissements pour Willy Wanyanga moom il fait de très belles choses merci beaucoup Willy Content nañu jërëjëf kontaan nañu je pense que je vais enchaîner avec ki nga xamanteni nak nag tubaarkàlla ah dañu ko fekk c'est lui qui reçoit hein ah, de passage tay gis ngeen bu ñu ñëwé biir Rufisque defe naa ni Sénégal buñ koy wax bokku na ci Saint-Louis ñuy def teranga mu feñ bokk na ci gore ñuy def teraanga mu feeñ mama ko ba maa ngi lay nuyu joyeux anniversaire yaay booy ah, sunu yaay yow itam ñu ngi lay kontaanee bu baax mama ko baa may leen ko loxo dafay anniversaire nee na minuit jot na passé na waaye ñun du passé ci ñun merci beaucoup yaay booy ci présence bi waaye Rufisque aussi ci pays de la teranga ah, représente représenté dignement li tax ma wax ko mooy biñ fi ñëwee ba tey gis ngeen jàmm ak salaam gi fi ne biñ fi ñëwee ba tey gis ngeen bu ñuy dox ci mbedd mi ni amee mbégte ni ñuy amee contentement di gis ay gan donc rufisque euh, ville la bo xamanteni tabarkallah machallah yalla na yalla defal len jamm waye tay ki recevoir mo nek fi tay doomu rufisque la yobuna musique senegal fune ci aduna suma len waxe kan la kan gen may wax dama bëgg ñu def décompte ñu commencé 8 bu may jéxal ngeen waxal ma tour bi ñu dem 7 6 5 4 3 2 des applaudissements pour. Des applaudissements pour. Gorguignaï sous vos applaudissements. Ise burik mam se Mama sa walom baki michina wel ndeysaan mat falub naa doon njabi jangaayi daa béy maam Seyna bu Njaayi Cheikh Ibra Fall xat fori jaale soppe jaaraama bilaay jëmb kumba la man ba ci mbaaw mooy sa maamey mbay dem ba xuy mbay dem bay sa maam laat ci dem ba yaa di mbay dem bay sa maamey ali su ko jubal burundu kumba jigéenu songaan du ma wari waaw ke pari maam Ibrahima Mbaye te pari maam booy jëm ba xamatoo fan ngay jëm da ngay si fa nga jóge woon nga jóge mooy këri maam nga jóge mooy sunu këri ndaanaan yaa ngi nii ci senegal yaa ngi may way ndeysaan bu nu jaaxle yéen ñi yee bu ñu réeree Sénégal yéen ñuy kilo yi ngi ma way doomu góor du daaw seeni moroom ak fi lañu jaare te dañoo gore waaw waaw atu adu ragale doomu góor du daaw seeni moroom fi lañu jaar fii ci keppaaru maam yee aw mooy sa maam ngañ kon jële nag mbaaw gën yaasin ama kumba ngi xanang waay jële ndem mbaa ngi mbaaw mbaaw mbaaw mbaaw mbaaw yee jëmee sa njaay bu kari bi nga sàmbu leen ma way santi Jóob ana ku fi santi Jóobo Lat Joor seen maam Lat Joor nga jaal kuy Joor faal Fatim ngay jëlaw ma Samba Yaasin gis jamma ndey faal ma lay wayal waaw ndey saar ci oh dama lay sa maam ne lay sa maam ah nday xula jigéen ñuul ba mel ni ndey faale bilaay da ci fu njogoy sa faal njege yaaram ma lay wayal ndeysaan yéen yéen na leen di bégal bu ñu réeree yéen bu nu meree yéen nañuy kontaan loo ndeysaan waaw waaw ku fi sant njaay ci réew mi gisuma ragal am ngeen ñaanu yaay booy yéen ca kanam ku fi sant ci réew mi gisuma woo nga ñaanu yaay booyi ñi fi sant ci réew mi gisuma ku ragal am ngeen ñaanu yaay booyi yaa nga ca kanam ndey faal waaw waaw waaw waaw ñi fi ci réew mi gisuma ragal am ngeen ñaanu yaay booyi yaa nga ca kanam wooy fi jaar ba doon ko ñoo ko xam kon jàmbaar waru tiit yaay gay na njaay Njànku Sembé nay sa maam Njànku Sembé nay sa maam yaay meer Rama Thiam dundal ne dundal ne dundal ne dundal Rama Thiam dundal ne dundal ne dundal ne dundal ne dundal waay Rama Thiam dundal cey ni Rama Thiam Rama Thiam dundal ni dundal waay Rama ni xoolal ña ngay Faatumata Seck Kumba Géey lu mbur maali yóbbi dee cang géej ma way ndeysaan ah sama gars yi kontaan na nag trop jën jëf tey je suis très content et fier et honoré parce que boo gisee tey jii Jurbel lañu jee ji woon léegi agsi mais man damay nit koo xamante ni ci théâtre laa commencé ma xam lan mooy théâtre ma xam ni Sénégal su baaxee théâtre ko baaxal parce que théâtre c'est la vie de tous les jours mais nag ngeen ñafe ba tey mu agsi fii kon képp koo xamante ni théâtre kat nga rek tey am nga ndam monsieur le maire maa ngi lay jaar di kontaan bu baax tey kontaan nañu li rafet fay Birame Penda Kaagaan Mandoy je suis très content wan oh tu es bien entouré ah jërëjëf donc nag sunu xol sedd na. waaye wuy ma mais léegi kontaan naa de kontaan naa man yéen laa gëm. tënkee ci boppam ñoo ah. yow sa bopp. nga fan laa la sumele sap. fan bi ñu ma wooyee contrat man ak yow fële sa kiren ngay way naar bi si lébu ba mu jooy. <laughs> wax nga dëgg de. yow gis nga yow ah, monsieur le maire monsieur le maire kii jox nga ko poste maire yi de. Eh, man dama xarit la wax ka ma leen dëggantaan laay wax. xam nga maa ngi sànqat fecc naa ba yéeg feccaat ba wàcc munu ma dama feccaat ba yéeg dem toog sa sees bee kii góor gi njaay law la cat xam nga loo mën a waykat yi si tënge yëpp da xam cosaanu lébu xam maamu lébu te way njaga may dafa ni way dafa am wayantu am wayandoo am yow wayandoo woo wayantu wuloo da way te yàlla tax nga xam lébu kenn la tagga wayal xam nga tànk ba may yéegaat delloo leen rythme bi ma damay taasu jàllaale ko rythme bi wayu ma de barke yàlla wayu ma ñu xoolal njëgay Fatoumata Seck kumba gay yóbbi dee ca ngi ma way suma doomi yaay la pen miiro jox ma njëg ba nga fa sama baña dem biir kilaat xabaane ka njogu где waaye Ibrahima Mbaye soppe animu Ibrahima Mbaye soppe anamu ngañ puy dafa solu ji ndeysaan ndeysaan mais dinaa leen wax benn affaire benn moom mënuma ko muñ billahi ku Bamba loxo ci kaw bërëb candar moo fa bañ joju wiir wi moo fa dañ joju wiir nit ku ñuul tey am na ndam riba jëndar moo fa bañ joju wiir wiir mo faman dari kamil jangi ba ca Ndar moo fa bañ daju wiir wiir moo fa man dari kaamil jaa ngi nit ku ñuul tey am na ndam ndeysaan su ma xalaatee sëriñ bi ndakaaru ke pari maam sama xol di fees ba may bëgg aalu wante xel bari xol ba waral ma dallu Mbàkke xel di xalaat bëj indiwaat ko xol yi ba ëse rabuy di sar këñ di riir taxul mu waaru murid di ñaan bay fali la xësaayu iblis waru na yee yee yee yee su ma xalaatee sëriñ bi Ndakaaru waaw waaw bërëb ca Ndar bañ gëju wiir wiir moo fa kaamil jàngi bërëb ca Ndar moo bañ gëju wiir wiir moo fa kaamil jàng xaadim aha eh, eh. didn't mean. xalimaam nooy njëcc kunu njëcc mbaaw lépp ndooy njëkk ci jën ki maay sa maam la waaw waaw ndeysaan njëcc kunu njëcc mbaaw sa maam la njëkk ci jën ki maay sa maam la ngeen continuer soirée bi parce que ndanan yu bari nañu Ibrahima Mbaye Sopé nak na ko gis fi waaw am luma wax ak mom parce que suma suma xarit la Ibrahima Mbaye Sopé mo non ndaw rabbin ndaw yirim ku wax ku wax yirim cëm mais doom yaay kaay fii yow dama lay jàpp wane la directeur u Sénéfa maa ngi ñëw damay woy sëñ Babacar ba ca tàndarma ja maa ngi ñëw sama gars xam nga nit bu la defalee bu baax lu baax une minute ma ñëw boo ñëwee say mbokk da nga koy wax te gis nga dani sama premier grand théâtre bi may def gars yi naan du fees din mën na ko wala mënu ko barki Seydina Mouhamed quatre jours maak moom a ànd muy dox di wax lépp lu ma sol moo ko indi fala yendu nekk ci montage yi nekk ci sama yére te remercie dani merci beaucoup motax tay tey la gissé damay contane parce que aduna amul solo bax rek am solo fal non non far yaay trop il ma wax ko remercier la fal bon Ibrahim nañ daw raabin rek kon mu jeex eh dafal ndànk voilà cëm kaay taxaw fii yow <laughs> ndeysaan dëgg la euh, waa Keparu Maam maa ngi leen di baalooti ax di am ku may sant maa ngi wax sànq ne Ibrahima mbay man ak moom dañu bokk yaay lenn moo tax ma jëkk kon naw dama génn sama album di def promotion bi mu ñëw sama kër ne ma nañ dem ñu dem Blaise sengoor boobu Blaise Senghor fa la ndaanaan yëpp di daje mu nekk suma ménagère foofu def naa fa benn compétition ba jël fa pay parce que Seydina Mouhamed tam moom mi moo tax muy ku ñàkk kiñaan ñaan mais nag xam nga lan moo ko may lii yëpp moo tax gis nga artiste lu ñu théâtre dëgg la gis nga nit loo am na nga jàpp sa yaay yaay mooy lépp ku am ndam sa yaay la ko may parce que Seydina moo tàccu leen jigéen ñi tàccu leen seen loxo Ibrahima mbay nag bu ñu mësaana dem fenn buñ ñu fa mille francs su ma ko joxee deux deux mille cinq cent ca yaayam lay dem jox ko kon yow xam nga ni lii jomb la man bu ma wax dara waa waa duy ma waa dañoo match nul foofu boog dañoo match nul mais gars yi kontaan nañ trop tey lii ngeen def nii yéen honoré wu leen Ibrahima Mbaye ñun Rufisquois yi ngeen honoré parce que Seydina Mohamed parce que lii man yaakaaroon ni dinaa dund ba dee te ndaanaan yi may gis fii den xam ci tele bi ñuy bégal jaamu yàlla yi du ma teganteeg ñoom bët te nag si suis très content ma kontaan jàkkaarloo ak yéen ndeysaan xam nga Ndey Fall boo gisee moo tax xanaa xamoo ni man bi may jàng théâtre dañ ne ma y' a pas de petit rôle mais y' a de petit comédiens Ndeye Fall dafa jouer ben rôle rek sama yaay xolal sama yaay bëgg ko motax tax fu ko gis dama koy fonk ak ñaari loxo parce que motax tax kenn kuñ ci jox rôle bu ndaw nang ko def comme rôle bu mak du deug y' a pas de petit rôle mais y' a de petit comédiens am la tuuti la bay wax la tuuti rek jëmm ji dala wax yaay waye ñëpp a bëgg seen yaay waaye moom moom tamit góor gi Njaay ni mu meloon si yaayam dafa noo dafa dafa jéggi dayoo danoo toog di naan ataaya mu ne eh xel suma yaay xel leen suma yaay lu noo def yaayam lay njëkk a na leen ko jox kon tey ba ko waxee soppe mi moom tamit noogu la mel mu nekk nit kaa xamante ne nun dañ laa tiitaroo si tëngéej ngay sunu lép soppe nag moom dan kaa bàyyee yàlla waaw mab koppee la mab lép la dam kaa bàyyee yàlla waaw Ah, da nga bëgg sa yaay yow tamit foog nga am lii si tëngeej tëngeej ñëpp la bëgg ñëpp la baa wayee daa war a way baa wayul daa war a way wayal <laughs> cey acca léegi xoolal booy na wuy ma tey nag affaire bi affaire bu kii la mais déwén groupe laay indi groupe laay indi samp ko fii ñu defar ba mu baax mbay demba lebu yaanke yëgali maam Kumba Lamb Ndoy mooy sunu maam njence kunu njence mbaaw wooy maam njërey sunu maam maam Kumba Lamb Ndoy mooy sunu maam njence kunu njence mbaaw njen puy lebu yaa nge waaw waaw na saal bi weex People. yaay atu naan ma njaay ngone bu dem I, applaudissements s'il vous plaît des applaudissements s'il vous plaît Des naa comme nous ma leen ko promettre woon leer na pas guddi gi defe naa ni neex na ba merci beaucoup góor gi Ndiaye s'il vous plaît ñu dellu suñuy place rek ma ñaanaat leen léegi léegi benn mbir bu ko defee ñu kontaan ci yéen bu merci beaucoup à toute l'orchestre Nous nga xamante ne ñoom itamit jàpp nañu ci bagage bi merci beaucoup góor gi ci modestie bi ci yëg-yëg gi merci aussi ci teewaay bi jërëjëf xam ni temps bi xat na waaye bu xatul woon di nga gën a yaatal di nga gën a sori jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax ci yéen yéen ñi àndoon ak moom aussi alors j'en profite aussi pour remercier toute la population de Rufisque remercier aussi ñi nga xamante ni ñoo jàpp ba tey ci combat bi sedd na de waaw waaw gars yi tàccu leen ko waaye tàccu leen ko moom fi ne ñuux gi la tal ba nga xam ne dafa yéeg gi sax dafa yeex as indil ñu sunu sunu sunu maam door bi ayca ayca indil ñu ko indil ñu ko bi moom man maay joxe yëpp yow yaay joxe maay joxe yëpp waaw day day day gaaw indi ma teel waaw teel teel conducteur bi voilà euh, Moustapha Moustapha lii bett ah wax dëgg yàlla këf gi dee ngi ni jekk lool te lu la bett lii daal lii daal la la defal ah jox la ko mu nekk loo xam ne vraiment du chance mérite la tàccu leen ko xale la bëgg na li muy def wax dëgg yàlla jàmbaar la et merci beaucoup xam naa ne émotion bi moo la jàpp mais merci beaucoup keppaaru maam jox nañ la lii maam door jërëjëf jërëjëf émotion moo la jàpp mënoo wax demal acca ku ci topp la kàddu gi demal baal nañ la acca ki ci topp jigéen la waaw ah jigéen ñu naan ko ñu naan ko ñu naan ko yaa ngi wan ko bëtam baaxul barki yàlla <laughs> du ma ko liir fi xam nga damaa mi <laughs> moo tax may may ku ñu naan ko nan góorgóorlu ñu naan ko maire ah, kii sama yaay la maire Aminata Mbaye Aminata Mbaye eh, gaay tàggu leen ko ko Dakar maire Aminata Mbaye booy aca balla jë indil maam door bi maire Aminata Mbaye sama yaay booy ah ana sama yaay di wax rek ne lii ay eh, ay ay ay njukkal yu am solo la reconnaissance la ay raaya la yoo xamante ni mérite la li ngeen liggéey ci art bi liggéey ko ci théâtre Sénégal balla sama réalisateur bi nee na naa lay sori nang may sori parce que dafa melni ñoy lar sen dañuy lar sen ñun ñaar dama xamul looy takkaloog man ah, ah. legui le temps ko sama yaay boy di yegsi waaw <laughs> mère Aminata yow loy ut ci kaw seen bi fast track la def loy ut ci kaw seen bi sama yaay lañu bëgg mu ñew legui nak comme ah, dafa sori do wacce Ibrahima mbay comme mom dafa sori <laughs> bi tey dañuy lan ngeen ci sen bi sama deuxième solo lay waay ki ci top ni ki ci top ni na wàcc seen bi voilà na wàcc dañoo bëgg lu gaaw acca ana ana meram nata bi tey ni nga téye noon ñuy xaar sama yaay ji ñëw waaw wala ñuy xaar ki koy jël si ñëw waaw may ma ma woo keneen ki ci top waaw waaw woo leen keneen ke waaw ñaar bu nu mënee ànd ñëw sax day neex waaw il a toujours été là ayca yëngal na fii atelier yi chaque année moo koy def il est tellement disponible waaw doo xam tonton Mamor kan la tonton Mamor jaara Thioune Mamor tàccu leen ko Mamor Thioune il le mérite kenn xamul maam Mar Thioune boo ko gisee ci xale yi gars yi na bu baax waaye na loxo yi gën a yëngu waaye na loxo yi gën a yëngu li la <laughs> salal la <laughs> sa booy waa sama booy waaw léegi indi bi jox ko bii rek benn ah non bi bii la ayca ubbil ko ubbil ni comme ko gars yi ñu tàcc ko bu baax waaye maam Mar Thioune nañu ko gunge s'il vous ba mu yegsi da ngay def nii nañu ko gunge ba mu yegsi voilà voilà Mamor. ayca li li lii du chance mérite la. gis nga biñ ne Mamor ñëpp a yuuxu liggéey rek moo am solo ak uuf say rak. te loolu nga def gars yi mayaat leen ko loxo bu baax a baax a baax a baax a baax. ndeysaan waaw. nga xamante ne mooy Mamar Diarra Thioune. Uh-huh. sama la maa ko jàngal tayar.

jërëjëf acca euh, maire Aminata Mbaye ñëwagul ba tey léegi léegi dama bëgg ñu def benn mbir waa lu ñu def bii da koy jox Ibrahima Mbaye soppe mu dem ok Ibrahima Ibrahima kon yow la jox euh, maam door bu maire Aminata euh, Aminata Mbaye bi ah. yow la yow lañ koy jox ah nga yóbbul ko kaay nga jël bu maire bi kaay am ku ñëw jël bu meer bi a ah, maire baa ngi ñëw mi ngi yegsi a ah, maire baa ngi ñëw

ñu nekk di joxe li nga xam ne moom moo di maam door yi ñii ñëpp dafa nekk ñoo xam ne dañ ci jàpp juróom-ñaari at di ci def lu ne ah cànnaar bi tey cànnaar nii <laughs> dama bëgg notre directeur du centre bi nekk fii ñëw jox ko ko ñëw jagleel ko ko ah oui ah ah jëlal écharpe bi cànnaar directeur s'il vous plaît jëlal jëlal jëlal ñu lii s'il vous ah directeur nga baal ñu ñu déranger la s'il vous plaît voilà directeur mu joxal ñu ko mu ngoog joxal ñu ko <laughs> voilà. merci beaucoup Tchannar. merci beaucoup Tchannar. merci beaucoup. Aïcha kon nous continuons gis ñu continuer Kepar tey. 7ème édition Maam Dori ñu continuer bataille. alors bataille. Uh-huh. après Tchannar, uh-huh. on peut même l'appeler. Uh-huh. le jumeau de Ibrahima Mbaye Soppe. doomu Cambérène la. moom itamit yàgg yëngal réew. kooku jaruñu yàq turam jugal xam nga sa bopp jugal rek. xam na boppam jugal jaruñu yàq tur bi jugal ñëwaale ñu doon wax tur bi. may leen ko loxo bu baax a baax mu jóg. mañoon jugal xam nga ne yow la ñuy waxal. <laughs> alors il s'agit de Mandione Laye moom itam vraiment yàgg ci li ni mel ku ne xam ko ci troupe daaray coach mu def liggéey bi mucc ay moom itam ñëpp di ko wax jumeau Ibrahima Mbaye Sopé alors alors euh, bi waaw sama yaayu bopp laay woo ko xam suba <laughs> ba léegi waaleykum salaam waaw mu jox ko mu jox ah mooy sama yaayi Marème Niang présidente Arco Rufisque Marème présidente Arco Rufisque ñëwal jox ki nga xam ne moom moo di Mandione Laye maam door bi Marème Marème ana Marème Niang dafa sori wala dafa sori. dafa sori wala waa xam nga nag boobu ba léegi mi ngi ci mbir yi. waaye léegi comme dafa sori. waaw. Ah, mi ngi ñëw ala mi ngi ñëw gis nga ko boobu ba léegi mi ngi ci liggéey bi moom itam voilà bàyyiwul benn yoon voilà mais fàttali rek mbokk téléspectateurs yi ñu ngi ci ah. septième édition Keppaaru Maam ah ñu koy amalee fii ci Sénéfa fii ci Rufisque ah Rufisque Est la ñu nekk actuellement ànd ci ak ki nga xam ne moom moo ko créé moom moo ko taxawal muy Ibrahima Mbaye Soppe Eh, jamono ji gis ngeen li nga xam ne moom moo fi jot a jaar di ay eh, ki nga xam ne moom mooy góor gi Njaay live yi nga xam ne jot na ko fi def muy lu neex mu bégal askan wi waaye itam eh, Willy Wañanga jaar na fi moom itam humoriste la def lu am solo am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci coulisses di xaar bu ñu paree maam door rek bu soobee yàlla fii day gën a xumb ñu ciy ànd ba léegi rek en direct ak télévision Walfadjri voilà Marème yegsi na. sama yaay booy Marème yegsi na. elle est en Lacoste gis ngeen ko mi ngi ci liggéey bi ba léegi aha dëgg la mais mais mais li doy waar ci lii moom mooy moom mi koy jox ak kiñ koy jox yépp xamante nañ yàgg nañu ah ci troupe daray Kocc mu nekk loo xam ne lu am solo la <laughs> waaw bismillahi rahmaani bu dëgg jibee rek dara jib waaw waaw bu dëgg jibee dara jib dara jib dëgg bu dëgg jibee dara jib même bu dee si feneen lay jógee foo dëgg gi jib parce que lu yàgg rek dëgg la mhm. Ibrahima tout d'abord maa ngi laa gërëm maa ngi laa ziar bu baax di la ñaanal yàlla comme ni ma ko waxoon fële sànq rek si cercle Maurice Guèye di wax yàlla nga def cent quarante deuxième édition amiin yomb na yàlla yàlla ko yàlla def amin yaa rabbi bu ànd ak nag wér gu yaram ak xéewal Ibrahima yàlla nga bari xaalis amiin waaye yàlla na ñu xaalis si aar bi rek maasal nun gi maasal nun gi yàlla na ñu bëri xaalis <laughs> euh, di wax lii vraiment kontaan naa si trop Ibrahima ma ak yow dañu yàgg ah. nga nekk suma xarit nekk sama am di jàmm nga xam sa famille ma xam sa famille sama nga xam sama famille samay kër samay doom yow rek la ñu sopp bu ñu waxee ñu ne ma papa ñun daal ñu ngi si suñu père Ibrahima Mbaye soppe daal <laughs> waaw donc xam nga loolu dafa neex dafa neex donc euh, ma amaat beneen mbégte ci kii nga xam ne tey moo ma jox trophée bii tey moom moo ma dalal daaray Kocc ma leen di ñaan ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a nekk nit koo xam ne yàkkamtiwul woon dara lool la may jàngal bul aar ba aar ba si nekk bul yàkkamti dara parce que aar léeg-léeg mën nga dem bay waaj a sax <laughs> mu daal di jékk mu yàgg rek def benn rebondissement merci <laughs> si may caba ma leen di wax ni ba mu commencé jouer boo leen seetaanee euh, Babylone Babylone bu ñoom ndey Mour njaay ba ba mu wax papa jooy ma xore ji li ko wax mu naan man Bob maar laay jooy sama bopp mu nekk sa bopp dafay métti <laughs> mu nekk bopp mu nekk kuy bopp ah. Marème ñaa ñoom ñoo nekkoon ca xeer ya ndeysaan takk ay fulaar. ndeysaan di way way way Bob Marley. merci beaucoup kon Marème kontaan naa trop. merci beaucoup jërëjëf yàlla yàlla merci beaucoup Madione Laye merci beaucoup merci ñu jàllaat ci keneen en attendant mère Aminata Mbaye ba tey ñu ngi koy xaar. alors maam Dora ma ngi nii ma tee. ah ñu jàll ci kan ba tey mi ngi ñëw. acca alors ma dem aussi ci jigéen ju mën góor. waaw jàmbaar la. Uh-huh. elle se bat tout le temps ci théâtre ci ay événement wu ñëpp dañ ko fay gis Fatma Samb ñu may ko loxo bu baax a baax. ayca ñu tàcc Fatma Samb mu ñëw moom itam jël. jël maam door bi Fatma Samb dañuy woo Sidi Fall mu ñëw jox ko ko acca kon Sidi Fall jugaleel nga ñëw mu ñëw jox Fatma Samb ah, maam door bi monsieur Kim ah mooy ñëw monsieur Kims mooy ñëw déedéet Sidi Fall la waaw mooy monsieur Kim. mooy monsieur Kim. waaw <laughs> alhamdulilah am nga loo ma jox lu ma koy tooñee <laughs> Sidi Fall ana Fatma tey am naa ko dans l'ordre tey am nga ko voilà mu ngoog Fatma ñu may ko loxo ñu may ko loxo merci beaucoup Fatma ñu jox ko ah ayca <laughs> takkal ko fulaaram jox maam dooram ayca photographie photo leen immortaliser ces moments merci beaucoup Moussa

ba festival ci QG mm. je veux bien sûr nommer Aïcha Fall de Pékin Aïcha Fall. Aïcha Fall may Aïcha alors Bitey, oui waaw mu ñëw daal di koy remettre. acca maam door bi. Ousseynou Ba ravissante kele xool ko <laughs> ca reetaan gu rafet ga ca accueil bu rafet ba la tey ñëpp ñi ñëw Pikine seen xool sedd na ñëpp ñi ñëw ci kër ay Fall bi seen xool sedd na aha la micro ci diggante bi bi ñu ça fait longtemps ñu ngi nuyu ñëpp maak Aïcha bi ça fait longtemps temps euh, ma ndumbe la woon ak papam ñu dem invité ñu ne yàgg na nag dara xewagul boobu euh, mais ce qui est extraordinaire ce qui m'a touché c'est mhm. ma première visite euh, Arcos mon mhm. moment ma ndeysaan mu ñëw ne ma Pathé Sène ma ne ko mu ne ma xàmmeetoo ma de ma ne ko déedéet uh-huh. mu ne ma at sàngam bi sàngam ñëwoon nga sama kër ma ne ko gañe nga ma waaw donc vraiment <laughs> boobu tey maanaam mënoon na ma bàyyi ci biir daal dëgg la dëgg la mais gañe na ma jour boobu ah, dafa baax moo njëkk a duggal festival Képar ma moo njëkk moo njëkk a uh-huh. ma ndeysaan ndugg waaw daan dugg lépp ñëw ak ñoom ay xaritam uh-huh. ñom daag ñom day fal ñepp ñu dar ko ñew mu jox ma lu mu am nak mhm. bu ñu xuloo tey ku ci dugg ya nga am problème parce que bu ñuy juboo doo ko yek wa moo tax nekk sama jigen nek suma xarit deug la yow lo am ci soppe mérite la yàlla na sa jamm yàgg merci beaucoup Aïcha merci beaucoup merci beaucoup Aïcha Aïcha merci beaucoup Aïcha ah, ma continuer bataille. continuer bataille. Mais enchaîner de di ma accélérer alors ki may woo moom aussi ah c'est une femme. elle est disponible. Mhm. elle a toujours été là pour Nyop. Mhm. ah doomu Arko le, la. Mhm. la diva xel mi day dem ci Fatou la diva. elle le mérite elle le mérite la diva Fatou Wade. Fatou alors ça montre que elle le mérite hein, parce que Nyop yuuxu nañu hein. moom wax ah oui ah oui ah oui ah oui. Aïcha, Fatou Wade le <laughs> groupe fans club alors la diva d'ailleurs wow, aussi son grand qui a été toujours disponible aussi son yeuf son il est de rufisque omar 6 omar 6 mu grand omar 6 s'il vous plaît mu ñew dal di koy remettre li di omar 6 omar 6 waaw def <laughs> omar 6 est-ce qu'il est là grand omar Nekofi, fi ah oui anamou grand Omar Njol, ma ngi dégg série rafet ma ngi dégg la diva ma ngi dégg lu ne voilà ñu tàcc ko moom Omar merci beaucoup Omar ah, vraiment ñu may ko loxo bu baax baax c'est toujours les membres Dor du festival Keparu 7 septième édition Omar ça va bien merci beaucoup grand Omar merci beaucoup merci beaucoup ayca grand Omar jëlal nga jox ko nga jox la diva ah voilà photographe. alors immortaliser ces moments. Uh -huh. alors merci beaucoup grand Omar Ciss merci beaucoup merci Fatou bii bi tey. Ah, waaw di nga ma may ma jël sama temps. waaw bii ñi ci antenne bi dinañ ma may jël ma jël sama temps. waaw tey ju ko c'est notre héros. C'est notre génération. Mm-hmm. Il est petit peut-être, Tidjemoudi. mais mm-hmm. il est grand. Mm-hmm. Il fait de très belles choses. Ponkala, la. li fi nek yëpp bokk na ci ñi nek ci coordonner depuis lors su ma waxee war nañu xam kan la il est beau ce soir il est habillé en blanc ce soir des applaudissements pour Asmalik <laughs> Asmalik nyam. On, t'a eu, Asmalik. Asmalik ah, il est hein. beau. <laughs> Alors, bi. Bitey. Ah, Bitey, li ken ah. Directeur moi directeur. Euh, Mamdor. Dor Mam Dor. kon jox ko <laughs> mais as ma et puis euh, l'autre ci xamula euh. xam nga. as ñu voilà. Je suis presque Je ah. euh, personnes. Je mu suis 10. 10. Je dix. waaw mu Je suis teg. waaw ma après je suis ba 8. mu wax ba suis waaw après je ma un 10e. mais surprise quoi un après ma wax suis ne ko ok seulement mënoo parce que. Hein? Euh, diplôme yi dama siy bind tur mu ne che te te te te ma waa d' accord ma wax la kan la ma ne ko ah mu ne ma soppe la ma ne ko d' accord mais kon jubóo nañ mu ne ma ma ne ko baax na mais pendant ce temps maa ngi rey parce que xam naa ni. Uh-huh. ci suuf commandé naa beneen boo xamante ni pour moom la. Uh-huh. Euh, moom nag joxuma ko parce que yaa ma neex la mais As. Mm-hmm. dafa nekk sama rakk xol. nek sama dom xol as dañ koy fay contrat lu bari est-ce que xam nga machine bi may liggéey as malik moko ko France ñëw est-ce que dafa ñëw tal ko ni ma machine bi la bëgg la jëlé France ni barke Cheikhul Khadim ma ne ko bàyyi ko fii si kër gi billahi wallahi taala yóbbuwu ko barke cheikh Khadim machine bi nga yor ni billahi wallahi taala rawal rawal rawal lu mu am man la te jarignu mako dara moom dafa ma bëgg daf maa gëm kon man duma la ñaanal parce que xam naa on du chemin à nañ dem ba ci kanam ci ngay xamee nan laa mel ci yow léegi nag pour jox ko xam nga chaque année aussi yàlla dafa dogal sama soxna dafa nekk nii à côté ren nekk fii ma nga Canada mais sama xel dafa moment bii nii comme dafa daan teew dafay nekk si sama xel dafay nekk si moom ma bëgg ko rendre omage ma bëgg aji caam ak ñi ngeen àndal ngeen ñëw ngeen jox as prime. ayca kon jóg leen ñëw. jóg leen ñew Marina. jóg leen ñëw ñu xar leen mais soppé damay profité bala ñoy ñew rek lolu nga wax ci as je pense que groupe Walfadjri xam nañ ci dara muy équipe bi nga xamné ñom la andal di liggéey as dama koy wax parce que soppé amul ben tournage bu may def te awma as mu ñew as na ma jamais demandé 100 francs te as moy organiser tournage ba mu jeex tak kon nak lolu dama koy seedeel vraiment merci beaucoup as merci beaucoup di profité nag di nuyu papa. waaw suñu doom ji. nee na ma papa yow danaa bàyyi ba ma dem Canada ne nekk fii di def festival ak <laughs> papa yooyoo ko quoi. aca <laughs> photographe mais yàlla yàlla fay jërëjëf. <laughs> amiin yaa rabbi merci beaucoup amiin yaa rabbi merci. groupe No Stress. bis na ki tey maam As nga la ngay tudd. bis na ki tey maam As. alors ñu dem. bii aussi. bi tey dinaa jël sama temps. jëlaatal sa temps. kii c'est notre guide. c'est notre mentor, mhm. c'est notre conseiller, mhm. c'est notre tout. Mhm. Il est à la fois notre grand frère, il est à la fois notre père, il est toujours disponible. Il est le président de l'ARCO banlieue. Il se nomme tout simplement M. Leïti Fall. Il le mérite. Des applaudissements pour M. Leïti Fall. Leïti Fall. Leïti Fall. M. Leïti Fall. Fall def leen bruit bruit leen bruit na ku ne bruit bruit leen bruit leen <laughs> bruit alors alors bi tey. waaw Leyti soppe Leyti ah, damay woo aussi sama benn papa boo xamante ni maam Leyti ngoog maam Leyti ñëw na damay woo sama benn papa boo xam ni <laughs> faaw moom mu déplacé wu ñëw jox ko ko. Ah, père Ñambe Sène déplacé wu ñëw jox ko ko sur vos applaudissements tàccu leen leen ñambe seen moom itamit mu ñëw jox monsieur Leyti Fall maam door dégg nga dégg nga dégg nga C'est la voix de, Malik, euh, ah, Malik Malik ah, voilà micro micro micro waaw moo tax ma sumeku nag ndax neex na ma nag ma sumeku waaw léegi yow lan moo tax nga sumeku naa sol lii nag ñëwaat léegi yow lan moo tax nga sumeku dama toog mel ni dama war a sumeku ma sumeku ñëw yow fan nga sumekoo néeg balaa sumekoo ñëwaat fii bi ngay sumeko noo sumekoo xanaa njëkk a sumi bi waaw euh, dindi chemise bi waaw daal dindi pantalon bi waaw mais su mi woon naa daal yi ba pare. waaw. après daal di. lu des. dara. gaynde gaynde. bu kii. dëgg la nga lu ne. da ci sonn di ci def sa doole di ci def sa xalaat. te loo am yéene nga ko doomu aadama yëpp. Mhm. loolu maa la koy seedeel ñëpp di ko dégg. Mhm. yow loo am yéene nga ko doomu aadama kon nag luñ la jox ci aar mérite nga lu ko ëpp. jërëjëf jërëjëf yal na la ci barke yonent bi jërëjëf jërëjëf. voilà merci beaucoup Leyti Fall. Leyti Fall. merci beaucoup merci beaucoup alors ayca merci beaucoup président ñu gunge ko ak ay tàccu. voilà ñu gunge ko ak bruit. alors on enchaîne ba tey. ku mujj ki nag da ma koy lebal dégg nga boo demee ba ci ku mujj ki lebal ma ko. yeggaguñ ci ku mujj ki yeggaguñ ci ku mujj ki. ah yow yeggaguñ ci ku mujj. ku mujj ki noonu ma xool ku mujj ki. jox ko mooy yurndu ndax ku mujj ki la. waaw kay. ayca ah, kii nag. waaw. dama bëgg. dama bëgg ñëpp ne tekk ñu wax leen kii mooy kan ki ñu jox lii ay ca parce que kii mérité na ñu jël sunu temps moom itam bu baax a baax a baax ay ca ndax kii nekk na koo xam ne nii tàyyiwul dëgg la kii ah. nekk na koo xam ne nii am na ñoo xam ne daf leen di wettali ba tey te kii nekk na koo xamante nii ku ko seen ku ne sa xel dina dem ci lenn mooy fenêtre ba kooku moy kan notre père Pape Demba Lam ay ci ñu tàcc ko ba ba Lam ko loxo bu baaxa a baax alors mom defe naa mom Pape Demba euh nekk fi waye dañuy wo suñu papa Mamadou Pen waaw defe naa buñ ko ko joxé day melni joxé ah xanaa daa ah mom daal nekk fi mi ngi fi won de ah ayca nanu woo sunu papa Mamadou Pène mu ñëw mu ñëw jëlal koko ko alors bi tey Mamadou Pène mu ñëw sunu papa Mamadou Pène bu yegsee dañuy woo aussi Ndioba Mbaye moom itam mu ñëw jël si ko. mu ñëw eh, mu ñëw eh, des jox ko eh, trophée bii di mam d'or pour Pape Demba Lam. Pape Demba Lam waaw. Ndioba Mbaye s'il vous plaît. maire bi ñëw na. s'il vous plaît. ayca. papa ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal papa. ñëwal jël. Euh, ñëwal Njóoba Mbaay la ñuy woo mu ñëw ñëwal yegsil ñëwal. joxe ko. Euh, bi tey. balaa Njóoba di ñëw. ñii. ça ne fait que commencer man ak ñoom. si lu bëree bëri. dañ daan jàpp ci lu bëri. ci li ñuy def.

voilà photographe ñëwal ni tuti, xawal def ni tuti voilà merci atia merci beaucoup yal na la yàlla décoré yow tam merci beaucoup jërëjëf décoré jàmm ak salaam décoré yàlla ya, at ya, yi ah, nga waroon alors bu maire bi yal na ko yàlla mu yokk te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla dem jërëjëf yokk beet na ànd ak wér ak wér la fekk ak dal bareetu barke amiin Ibrahima doo torox ci àddina amiin yaa rabbi acca defal ni nga tëj <laughs> merci beaucoup Papa Mamadou Pène jërëjëf alors acca bu maire bi maire ah, Aminata kan mooy ñëw yóbbul ko voilà ba ñëwal ñu jox la ko ñëwal ah ñëwal ñu jox la ko alors dañuy woo Ablaye Diop Dani bu ko defee mu ñëw jox ko maam door bu mama Aminata Mbaye dani ah <laughs> muy lu am solo ay trophée yoo xamante ni reconnaissance la liggéey bu feeñ la moo tax lépp mérite la macha allah. alors na yàlla nangu voilà ñu photo de souvenir ñu photo de souvenir bi wow waaw dafa am solo Amna solo lool Dama nous a sama papa Lamine ñukoy mhm. décorer ci bitim rew. voilà merci beaucoup Ñukoy décorer ci bitim rew mu de di l'ol lool bu amone sama rew dina gëna neex dina gëna neex loolu ni mi gis <laughs> maam d'or innovation la. et defena naa du fi am. kon yaakaar naa fi mu toll nii mën yeggali guddi gi. dañuy doxal suñu guddi. acca kon man mun naa doxal dem togi ne. dellul sa plateau. nga may ma ma yëngalaat fii acca doxalal merci beaucoup bi tay merci kontaan ci yow yalla na defal la jamm je dirais à ta mère que tu as bien travaillé. merci <laughs> kontaan alors euh, maam dor yi ci lañu ñu waye dañuy enchaîner ba tay guddi gi nee naa leen artistes yi des nañu fi ci ginnaaw dañuy enchaîner continuer maintenant dugg ak ambiance je vous l'avais promis sank ambiance humour rire lépp promettroon naa leen ko te defe ni gis ngeen ko bala may annoncé ni est-ce que damay lajat sama question bi est-ce que mi ngi cool dégguma de kon coolul est-ce que mi ngi cool voilà légui dañuy tatchu ñaar ño xamante c'est un duo ils ont toujours été là pour ñun pour nous faire plaisir indi ambiance indi rythme indi humour kenn ki lu ko neex lay def kenen ki kilifa la des applaudissements s'il vous plaît You for a for. My so go wax you bi a for, s'il vous plaît You gonna for ye. you gonna for ye, s'il vous plaît Idrissa et Cheikh waman dama bëgg jommi wala dama bëgg waru ay ah Idrissa kon yow ambiance bi bi mu doon dégg kon yow yow la won ambiance bi mu doon dégg ci bir kër gi kër gi di rek kon yow la won a ah, da koy valider ah way kon da koy valider kon da ngay valider ni ambiance bi yow la yow Idrissa yow benn question rek la lay laaj yow lan mo tax yow yow respecté wo ma lan la sama kanam gi da nga gis ni da lewet da nga gis ni sama kanam gi amul cicatrice ñanguma motax nga ñeme ma dan Idrissa dañ la wax ni man tapet la munuma laa ray wa Idrissa kon yow lan motax kon yow respecté wo ma Idrissa fi sabilillah Idrissa dina waxati ba sama voisin yépp ma japp ni dama bëri wax te fekk ni or que limay wax limay wax li may wax sama xol bi lay metti sa respecté ma nga respecté sama liggéey bi Idrissa dinaa la lekk te doo ko yëg tàngal nga sama xol bi sama xol bi mi ngi metti sama xol bi dagg na yow mën a xëyee ca njël sa da nga bale kër gi ba nga foo yërey Idrissa nekk ci kër gi di def neex pour lan moo tax Idrissa nekk ci kër gi di Idrissa dinaa gaañaa tey bàyyi leen du tàngal ay moo fan laa jóg ko xamaa ko eh lislaam laa la wax eh yow foo yow yow yow yow yow Idrissa yow fóotu lislaam kay boo koy fóot ah balaa ngaa dugal kii bi da koy xayi ba pare ana xay bi lii la lii mooy xay bi ah eh xanaa gis koy di lan la ni yow xoolal fi koy weer nag de xoolal koy weer ndax dama am ay noon xoolal fi koy weer te bëgguma jot ak ñoom dara voilà kii soxna see wayaasi bàyyi ko fi nee na nag na nga ko fóot fóot boo xam ni fóot lan la looy daw Idrissa looy daw Idrissa looy daw eh Idrissa lii lii lii lii doo ko fóot nga ni lii Idrissa eh lii du bokk ci póot mi <laughs> yow sadigoo sax yow yow da ngay sadig sadig lu dugal naa ko fi nag à tout moment mën na naan ndox mi lu mu wax mu ne lu nga ne ma ne sa naa ko fóot amul amul amul problème problème waaw sa caaya mën naa ko fóot amul amul loolu ma la ba moo ko moom waxuma la loolu na bokk ci fóot mi dafa voyage yi bàyyi waxuma la en tout cas daal du ma ko du ma ko du ma ko fóot ok ko fóot kon yow da ngaa takk ba raw naa naanaa sax man maa raw takku takku takku takku man. yaa raw takku bëggëj d' accord loolu noonu. eh dinaa ci de Idrissa yow boo ma xoolee xam ne man ragaluma boo ma xoolee xam ne <coughs> man ragaluma du ma tàppet man man samay génération ñëpp laa tëral man tëral man yow xam nga lool eh foo oho xanaa xanaa a déggoole ma foo ootuma waaw waaw bul fàtte ne yow sama kontaakinte an mooy sax mun mun mun mun eh, kontaakinte kontaakinte kontaakinte waaw xam nga fat see fat see yow tamit yow fat see yow Idrissa lool yaakaar yaakaar naa lu ko raw Idrissa depuis sànq ba léegi maa ngi lewatal sama kanam bi Idrissa nga may jéem a jaay tàng xol man faalewu ma la faalewu ma la yow. waaw yaa may mu tuut mu tuut waaw wàcceegu ma la man ma la yow. aw moom aw moom mon père ngay ngay ngay bon bon loxo man maa la gën. ana bon xol li nga yaa ngi dégg man nag di liggéey sa kër taxul nga teg ma mbaam man maay maay maay bale ma bi maay maay defar sa néeg maay defar yëpp te weer bu dee doo ma doo fay lu ko jar. maa tey ah yaa tey ndaxte yow balaa ma laa liggéeyloo nga tàng sama xol bi ba pare. ah ok ok léegi nag wax ci sax du yàgg man kon ka maa doon liggéeyal te gis naa ne man a sunu liggéey mënul ànd damaa bëgg nga nga fay ma sama xaalis ma bàyyi benn yoon. man dàqu ma la de man dàqu ma la yow yaa bëgg a nga bàyyi yow yaa bëgg a bàyyi nga bàyyi léegi léegi yow. comme que bàyyi nga man aw ma lu la fay asalaamaaleykum rahmatullah ah asalaamaaleykum ngay ok man amul problème xaalis bi jéggal naa ko ci barata yàlla tun tun tun tun ok waaw ok ok koo yaakaar ku ne yàlla la yaakaar ne ko ne ne ko ne ne ko dem Belajar jant saw ma jaar fii man man man man man man dem naa wooy kon Idrissa yaa ngi toog ba di wax ne ko ne ko ne ko ne ko dem naa man da jàppoon noo sax yegg nga bu yàgg bee ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon saw ma jaar fii man man man man man man man man man yow munoo wax ba pare di xuloog man yow toño sa bopp yow tooñoo sa bopp yow wax di xuloog man Neko neko neko dem na ala jant be ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong ngong saw ma jaar fi man man man man man man man ok fils ok merci ok fils sa ñaawaay yow yegago ba léegi ne dem na man duma yeureum ko handicapé vocal man man man ku munul wax handicapé vocal bala nga wax mu jël temps sa yow yow yow yow nga ñam nga gi nga nekké moma um Idrissa toll nga ma fuma yalla yow demal demal demal demal tago bu bari tamit Idrissa lan lay nuru ñaan xaalis fayeeku ma waaw doo ma gis doma gis demal te boo demee yàlla boo ñëwaat yow Idrissa boo demee yàlla boo ñëwaat yàlla naa tàqalikoog yow li may ñaan nii ci fajaru maam yàlla gi ban heure a jot yow ah yow eh jot waaw li may ñaan yàlla ci 4 heures 24 bi yàlla na ko yàlla sotti yàlla na ma yàlla tàqaleeg yow demal demal demal demal demal bul ñëwati xool ko muy mel ni peinture katu sànce yooyu nonu di liggéey fe yow man faalewuma la di bo demee Idrissa Idrissa Idrissa Idrissa kay. Kay, mo wax la kay wa, wa kay mo wax la kay, mo wax la kay kay kay kay mo wax la wa xaral xamna la xamna la yàqatu der nga tem tem nga dem ah dima woré ci ci ci koñ yeeg yooyu nan fayu ma la ak yooyu xam naa la wax yow ya bàyyi sa bàyyi bop yow ya jël sa initiative fu bop bàyyi lol nak nay leer yaa ngi dem nag waaye bul yàq sama der xam naa fi ngay fréquenté demal eh eh eh am sa siwo bi am am sa siwo bi siwo sangookaay yi nii xam nga ni lii ma kat am am am am am am am am am yóbbul yóbbul am yóbbul yóbbul ngay bon bon loxol rek man maa la gën a bàkk perek ma maa la gën a bon xol fuuf alors c'est un chanteur c'est un musicien c'est un compositeur il est court il est petit de taille il est là ce soir mesdames messieurs il est beau non des applaudissements et maximum de bruit pour Ñamaxit Ndama Ça Balle, tay sama wax du bari sama kàddu du bari nak fan ci suba ba tey ñu ngi mën nga bayyi sama mbagg mi soy wax. waw xam nga bëgguma tey liñ bi. ba tax na sama fan ci dal leen ñu bayyi ñu wara jouer jouer ma ngi fi tok ba ci kanam balle sama fan ci sama xol set na ci yeen gis na taxwa bi jere gi def merci beaucoup agatio. yo est-ce que ça va. I got you. voilà. Ndama Kaay Ndama Kaay Kaay Kaay non non non Kaay Kaay s'il vous plaît s'il vous plaît des applaudissements mu ñëw s'il vous plaît ñëw leen ñëwal ñëwal ñëwal Sey Jibi Sey s'il vous soxla naa la fii Toch s'il vous plaît soxla naa la fii Dadi s'il vous plaît soxla naa leen fii ñëw leen s'il vous plaît ñëw leen ñamaxit dafa am ana bigi bigi mu ngi fii ñëw leen fii s'il vous plaît soxla naa leen dafa am loo xamante ni danga ñu ko tàmmal. dafa am comme lo xamni dag ñuko tamal et defena ni sa fans yep tay lolou lañu soxla très bien fans yep lolou lañu bëgg dañu bëgg nga nga cappella fi lu extraordinaire ba ñu nekk fune diko yek ko diko deg mu ngok waaw aw ba lay ah dukuri jërëjëf ndeysaan bu ko defé ñu barkeelu ñaari er rek day bëgg a guddi waaye dukure Hey! Eh! waay écho bi ay waay defal leen ma écho bi yokkal ma bi ndeysaan eh la la la ndeysaan alaaj jibi sama xol sedd na ma laaj man dama koy laaj lu ndaw rek air bi nga barkeeloo ku ko way lii foo ko jëlee waaw lii nag maa ngi ko jëlee xam ni mooy Fatou Laobé mi way Fatou Laobé mi nga xam ne moo way owaatee 1964 hommage ma koy rendre hommage di jee yokkal yokkal ma écho bi s'il vous plaît ndeysaan eeyi yooye Yang koi jin bi yaa ngi koy torodo ma ak mbëggeel ni lay def si jaam dalay Mister Lo dalay Mister Lo dalay baax na ñama xëy sëy sëy sëy munoo bañ a barkeelu ci bis bi munoo bañ barkeelu ci bis bi sëy allah rabbi lii innovation la suñu xol sedd na lekk nañu ba suur naan naan ba màndi artistes ay noobu lanu te ku defal lii xamna ñoy ñan kon Ibrahim Mbaye Sopé euh, keppar maam mam na yalla guddal fanam ndax ñi fi ne ñu ñak ki ñaan lañu artiste yi li rek lañu bëgg solu ba rafet xéñ lu neex tok ñu leen di jox ñuy lek di naan lo rek la artiste yi bëgg sen poste fess del del ak xaliss lo rek la artiste yi bëgg yalla yalla guddal kontaan naa il est quatre heures du matin dama sonn Bercy laa nekkoon ànd ak euh, sama rak man jotuma yéeg. merci beaucoup Sey jërëjëf Moustapha kaay Toch kaay Toch yow itam faaw nga barkeelu ci bés bi. <laughs> Eh, eh, eh, nit kenn du ko def nii waaye nit ko kenn yow kii xanaa Bercy saalum la ne woon. mu ngi woon Bercy Paris moom moo nekkoon tibbite woon euh, seenu Youssou Ndour bi moom la.

moom Kaolack la dem Kaolack war a ñibbi si dakaar amul paasu retour mu ñëw ba ci borom bis bi waxtaan ak moom ne ko dama war a ñibbi Dakar fii ak suba mais yoruma paas borom bis bi ne ko bis bi fees na trent 32 places la te lépp man na mais boo bëggee mën naa laa teg ci kanam nga taxaw ni sama wet bu dee mën nga ko tenir ba dakaar saba booy bi ne ko ça va cool na mais réew moo nekk ci yaramu booy bi kaw ba suuf oto bi day daw bu rombee xar bo bi day yuuxu eh! ay yow sama pap bu nekkoon xar sama yaay nekk xar sama juddoo xar laay doon waa bis bi commencé énervé ndànk-ndànk mais faale wuñ ko bu rombee nag booy bi day yuuxu i naka ngi nii sama bu nekkoon nag sama yaay nekk nag sama juddoo nag laay doon gars yi commencé énervé ci ku ñu yóbbaale ci ku yorul paas bu rombee mbaam day yuuxu i mbaam ngi nii yow sama pap nekkoon mbaam sama yaay nekk mbaam sama juddoo mbaam laay doon ñu may dàq ma naan ah, ah, ah. foofu nag la gars yi énervé ñëpp a ngi toog di ko góolu di xaar Lac Kiri bi booy bi day romb rek romb benn bëy rek yuuku i bëy ngi nii ayow eh, sama pap bu nekkoon bëy sama yaay nekk bëy sama juddoo bëy laay doon ñu may daa xam na mais mais rek chauffeur bi aalu ci kaw mais nit bu reewee boo koy yar bu ko wan ni yaa gën a réew yar ko rek ci yar mais chauffeur bi da ko bëgg a wan ni maa la gën a réew yow booy doo ñu dimbali yow yow yaa ngi amer de waa yow yaa ngi yoroo paas ñu lay ngay nekk fi di yuuxu di amer de waa bis fay ba pare di leen sonal di leen amer sama yaay bu nekkoon li sama yaay bu nekkee li sama pap bu nekkoon li lii laay doon yow sa pap bu nekkon caga sa yaay nekk sàcc boo juddoo looy doon booy bi ne ko chauffeuru bus dañ doon barkeelu rek macha allah booy merci beaucoup Toch jërëjëf tu fais une fierté Bigi. ah da ngeen waroon duyo waaw ma Toch mu war <laughs> ah da ngeen nuyoo rek waxuma maak yow sa gàttaay ngay mel ni airport demal bon kontaan naa kontaan naa lool te maa ngi remercier soppe bu baax ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi soppe moo tax ma mën a am lii tey mooy sama première année ma fiy ñëw te xam naa ni soppe bu organisé wul woon lii mun naa ne sax am na ñu ma fi gis euh, du ma ne duma leen mës a gis mais dina yàgg balaa ma leen di gis te lii ñun lii lañ am comme ça kenn mën a taxaw fa la ne non artiste yi seen biir wuñu li ku ko gis bu doon da nga doon wax da ngay noppi te macha allah bëgg naa ngeen tàcc seen bopp da ngay noppi ah, paré ko ma nga am merci mais nice na dé man <laughs> man yi gatay rombé ba léegi talatuma mbiri xamatuma li xew dé eh macha allah merci beaucoup Bidi merci Biggi jërëjëf content nañ bu ba kaa jaar ah tubéy ji daa toj alo tubéy bi ma sol dafa toj wër naa jàllaabe wax naa ko Eva ne ko utal ma jàllaabe ndax xamoon naa ne lii daf may xaar léegi moo tax jaarewu ma nii dama wiiri te am na nu may demee dangay ngay wetu merci beaucoup Bigui merci Doucouré gis gis nañu liggéey bi mi ngi rafet dëgg la dëgg la waaw may leen ko loxo Doucouré a raison

jaa ngeen jëf mbokk yi ku fi nekk jaay ko du crédit wala ngay def lu yoon bëggul bu yeboo nga takk say daal ta fas yéene daw ndax journal bi tey dina bari waxi police ak waxi tribunal sénégalais yi fi mu ne boo nee tribunal rek seen xel yëpp dem ci viol waaye tey kaa yi fi xew du viol ndax muus mi violé jinax ji wala jinax ji provoqué muus mi loolu suñu yoon nekku ci li suñu yoon nekk moom mi ngi xewee ci tribunalu lu ma neex def u pël bi bi daal di laaj joolaa bi ne ko la moo leen jotale joolaa bi ne ko man ak ngóor ñoo bokk kër waaye heure bu ñuy xuloo daf naa ma dangaa dof ta dof bi may wax neexuma commissaire u pël bi daal di laaj ngóor ne ko la moo tax nga naan ko daa dof ngóor ne ko commissaire kii dafa dof soo ko weddee ne ko mu dem suñu kër xool ma fa ba xam maa ngi fa wala déet rek joolaa bi tëb nar génn tribunal bi commissaire bi ne ko foo jëm joolaa bi ne ko kër ñoom ngóor laa xam mu ngi fa rek commissaire bi reetaan yow neexul ba neexul waaye li la ngóor di wax dëgg la danga doof ndax li nga nar a passé di dem ko ñoom ngóor boo ko weewee téléphone di nga xam ba xam moo ngi seen kër wala déet bu ñu woon dëkk bu nekk ne Guinée li gën a bari ci dëkkam xam naa ni mbalitu sénégalais yi moom Guinée yi ñoo fa ëpp li ko waral mooy Guinée bi nga xam ne dafa jàng métier pendant une pendant une semaine daan na day beru ubbi salon <laughs> salon de coiffure premier client bi mu njëkk am njaago la njaago bi ñëw toog guinéen bi ne ko looy watu njaago bi ne ko dabala guinéen bi midi ba 23 heures muy wat njaago bi njaago bi pare ne ko alma seetu ma xool ba xam sa wat bi rafet na guinéen bi tàmbalee jooy man nag li ma jaaxal nag mooy lan la guinéen bi war a jooy lu mu war a jooy sax moom ah wat ah bee rafetul ah problème wat bi xam naa loolu la ki jooy ba léegi noppeegul mu ngi ci biir journal bi ubbil bi ci yéen kaay ñu fekk fa benn xale bu jigéen bu tudd Eva Eva dafa boot doomam daa dugg ci tata 43 bi jëm buntu Pikine bi muy dem ba ci yàgg receveur bi xool ko ne ko soxna si neexul ba neexul waaye sa doom ji ñaaw na Eva loolu daal di koy naqari mu gersu yam ci police caare bi Eva daal dugg ci police bi ngir porter plainte ki nga xam ne moo di receveur bi bi mu duggee daje gardien bi gardien bi ne ko koy seet Eva expliqué ko problème bi gardien bi ne ko kooku kay gi nga boot ndax Merci. Merci beaucoup, Daddy. Merci beaucoup. Il est pétri de talent, à Bitey. Daddy, wax Ah, Daddy, ah. li euh, euh, il faut bien comprendre benn affaire mooy journal bi journal bi bind ko ma bu concentré ci man rek journal mais Daddy le journal est-ce que vous le bind est-ce que créé ah le la hein? merci

xam nga suba. Ah, ah, ah. normalement amoon nañu ay match. waaw waroon nañ def ay lakk jën. nga ne rek lépp lu jëm ci wàllu programme suba loolu lépp. dañ koy tënk. mu ngoog ñu bàyyi ko ba at mii di ñëw édition bi di ñëw. incha allah.